Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa hadimi wa taala wabarakatuh. barakatuhu. di nuyu yéen ñëpp te di leen ziyaara di ci weeru tedd wi nekk muy weeru euh, Touba 18 safar 1436 le 11 décembre 2014. ñu am mbégte di leen dalal fii ci kër maam Diarra muy bërëb bi nga xam ne nii kuréel gi ñuy wax alxidma moo ko taxawal fii ci Touba ngir taxawu jirim yi ak baayo te mooy liir yi nga xam ne dañoo judd rek seen génn àdduna ñu tumuraanke amul kenn ku leen yor wala ñi nga xam ne sax seen yaay dafa am jafe-jafe wàllu xel ba mënta yor xale bi ñoo ñu lañ taxawal kër gi ngir fa saytu di taxaw ba kere ñuy mën a demal seen bopp delluwaat seen biir bokk loolu nag ñu ko taxawal fii ci Touba ginnaaw bi jotee ndigalu Cheikh Sidil Mokhtar hafisahullah wa raa yalla ko yàlla suñu borom yagal tigal ko digal lu ñu joxoon ci la 23 mars 2012 ci Ndindi bugul bañ fa jógee nak ci la 5 juillet 2012 ci lañ ubi kër gi mm, ñu ngi ko ubbi nag ca bassin si Mourtala fi ci dal ko dos dina ma fa jógee ñëwaat fi ci wetu kër si dal Assane jaay fi ñi wax yeen nak ñi nekk ci Touba ndamatu ci kono ci Serigne mourou Bousso Dieng bërëb bi ñu nekk tamit Serigne Jili mom Serigne Saliou moñu ko abal ñu nekk fi yor fi xalé yi kon bi ñu jotee ndigal ci sëñ bi ci lañ ubbi bërëb bi yàlla dogal tamit xale bi fi njëkk ñëw bàyyi ko Darou Salaam tudd Mouhamad xale ba ca topp ko tamit tudd maam aw bàyyi ko Darou Moti loolu la koy rafet dalam xel ci ni liggéey bi bu njëkkati fii ci Touba duppee ko ka fa njëkk tudd Mouhamad bàyyi ko Darou Salaam ka ci topp tudd maam awa bàyyi ko Darou Moti loolu lu daal xel la ñu muy liggéey boo xam tamit buñ ci jógee jotee ndigalu sëñ bi jot nañ mboolem kilifa ci dëkk bi wax leen ko ci biir loolu sax ci lañu genn kilifa te mooy maamoom si maamoom sëñ Fallu ni ka liggéey bi am na ko sëñ Tuubaa bindoon te mooy fi ñu xam walatu bashir bil yataama jamian sihim bi abaahum kulla xiini mooy mu ñaan yàlla suñu borom ni ko nag ma def may mbégum jirim yëpp jirim bu dox bu dugg sama keppaar na fàtte tiisu ñàkk wajur kon muy taxaw jirim nekk lu am solo loo xam ne lislaam daf ci soññe alquran wax na ci yonent sallam wax na ci hadis bu siiw te foofu muy wax naan ana wa kaafil yatimi ka haatayni fil janna maa képp kuy taxaw jirim ëllëg ñooy bokk ab jataay ci àjjana loolu yi nag di ab soññee boo xam ne képp kuy ab jullit rawat na nga bokk ci njabootu Cheikh Khadim war ngaa jóg ci taxaw ñooñu te bu ñu nemmi ko nag li tax ñu gën koo taxal mooy gis ni bërëb bi mel noonu dafa tuuranke ci gox bi nekk lu mel nii su ma saan am xale yi tuuranke day judd am ñoo seen bokk dañu jéem a yor dañu mën a yor ndax jafe-jafe yor bi ak lisaayu pañ ma wala dundal ba ba tax xale yi dañuy daal delluwaat ci seen wajur. day fal di wax naan miin nañ lool xale bi ñu naan dafa toppi waajuram ma neen toppi waajuram toog suñu borom andi ko fi waaye dañu ko nattoo ñun ñu fi desee ngir di wax leen taxaw am ci ñoo xam ne dañaa tuuma nag di leen di leen génn dëkk bi leen yóbbu ci yeneen loxo yoo xam ne ni ñoom pas-pas ñu fay màgge ca yooyu tamit népp loo xam ne euh, taxawaay bu rafet la loolu moo tax ñu ne ko daal nañ nañ jéem a fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci waar woowu bañ ko dooree nag wax dëgg yàlla ànd nañ ko mbokk jullit yëpp rawatina mbokki taalibe ndax la waxoon mooy liggéey Sëriñ Tuubaa njaboot Sëriñ Tuubaa bañ ko dooree ba fi nii ñoom yoo xam ne ñoo fi nekk di mbooloo di ay soxna yoo xam ne fii la ñuy fanaan di fi yandu di am nañu organisé seen biir ñoom ñooy jox xale yi ñu lekk ñooy jox ñu naan ñoo leen sang naka noonu tamit euh, am nañ ay soxna yoo xam ne tudde ay ndeyi jirim te mooy mbooloo mi xam ne ay soxna dañoo takk taxaw ñi ngi ci biir dëkk ñi ngi ci biir dëkk bi ñoom seen liggéey mooy tasaare liggéey bi ci gox yi fenn fu ñoo xam ne liggéey bi am na ñaara ba tamit lépp luy ndimbal buñ ko dajalee mën ko indi fa kër gi ñu yor ndax kër gi tamit euh, mën nañu si yan bi diis na ndax xale seen dund mooy meew mi ñu naan loolu jafe-jafe ndax yombul te ñaara baat nañ ci jariñoo dafay bari naka noonu soxna yu ñu wax sànq ñoo féete ci biir kër gi di leen taxaw ñu dem weer am na laaj na euh, ab ab taxawaay bu rëy loolu moo tax ñoom soxna yooyu di ci yëngutu ñu am ay carte barke la ñu wecc ko ko tasaare lañ ci am di ko indi fii naka noonu tamit am na ñeneen ñoo xam ne may tudd ay bàyyi jirim ñooñu am ci biir dëkk bi am na ci biir mi am na sax ba ci bitim réew ci euh, Amérique ba ci euh, Allemagne fenn fu nekk ña ñoom seen liggéey mooy fas yéene tasaare liggéey bi bal jàppale gi leen war a jàppale bërëb bi mën a dox ndax xam nañ ni saytu xal yooyu yombut seen charge bi diis na fii mën nañu weeru njëkk liñ fi ñàkk day ëpp mel jege million baa mu ko te yaakaaruñu ko fenn nag fu may ginnaaw baax Sëriñ Tuubaa ndimbal suñu borom mooy mu jaar li mu jaarale ci loxoy mbokki julli ak mbokki taalibe yi fi ñuy waxee yéen nag euh, kër gi ñaar fukki liir ak benn ñi ngi fi ñaar fukki ak benn yoo xam ne ñi jamono yi waxee yéen ñi ngi ci kër gi di fi yeewoo bañ ko dooree ba fi mu ne nag mën na juróom fukki xale jaar nañ fi maanaam wala ñu fi nekk ak ñu jot a génn juróom fukki xale lañ toll ñoo xam ne ni bi ñu dugg fii ay lii lañ mais bi ñu génn ñoo jàpp seen loo ànd ñoom ñu delluwaat ci seen i bokk loolu ndax ñu ngi ciy lancé appel di woo mboolem jullit ñi ak mboolem talibé rawatina fu waay nekk loolu ci mën nga jàppate liggéeyu Sëriñ Tuubaa boo xam ne euh, ngi ci jot na ci ndigalu Cheikh Sidi Matal ànd ko tamit ak mbokki jullit mbokki talibé yëpp kon fu waay nekk rek ci euh, bëgg a jokkoo ak ñun numéro yi mi noonu di jàll ngeen gis euh, ginnaaw wala nga wote ci numéro Tigo bi 76 133 88 75 wala sa nga joko suñ eh, nday jiri bi ci gox yi wala lu melni baye jiri bi ko ci jokal inshallah te bëgg assi ñun dañ la mëna yaatal ba nga assi ci teunk li moy kër maam jaar gi li moko taxaju ñi ngi ñaan yalla suñu borom defal ñu magal jamm ñew ci jamm ci del ci jamm ci day ci ngërëmu Sëriñ Tuuba wasalaamaaleykum alaykum warahmatullahi taala wa barakatu